ñu ngi tàmbalee suñu ndaje bi di ñaan di ñaanal kenn koo xam ci ñun la bokk te wàññeeku muy maître Ousmane Seye ñu ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla xare ko àjjana dañ koy sargal di ko ñaanal ndax suñu xarit suñu xarit la woon suñu àndandoo woon suñu doomu ndey la woon te pas-pasam ci euh, majorité amul woon dayoo amul woon naatable ñu bëggoon it sargal ak encourager di féliciter suñuy euh, ndaw footballeur yi xale yi football ni nga xam ne bi tey ñu ñuy continuer di ñu waar ak di ñu ba jox yokk bànneex ci li nga xam ne bi moom mooy euh, seen mëneef mooy

di féliciter son encadrement di féliciter ministère bi et di féliciter it euh, fédération de football ci liggéey bi ñu def pour équipe nationale yépp ñuy euh, ñaan li nga xam ne le gouvernement bi euh, tàmbale di ko liggéey ba léegi ñuy ñaan président de la république ak gouvernement bi ñu continuer ko ba nga xam ne bi suñu football toujours ci kaw lay nekk ñuy wax na loolu war nañ ko mën a jàpp continuer ko ba nga xam ne ndam rek lañuy xale yi di indil ñuy wax ne que jamono yi Sénégal yëpp seetlu nañu dara seetlu nañu ne majorité bi parti yi ci bokk seeni xarit ak nit ñi nga xam ne bi dañu ñëw nekk ay ay kilifa yu ànd ci majorité bi ñu ngi def liggéey bu mucc ayib liggéey boobule foo dem ci Sénégal di nga leen gis ñu koy def muy ci quartier yi muy ci dëkk yi muy ci département yi muy ci région yi fenn foo dugg Sénégal tey jii kenn naataable wul ne ëpp euh, euh, parti pouvoir yi mobiliser nañu te se wane nañu aussi seen fulla ak seen fayda ak seen mbëbët ci élection yi nga xam ne ne bii ci la ñu jëm pour 2024 ñu waxit li nga xam ne mooy seen tànneef ci nañu bëggee élection yi demee noonu Euh, coalition benn Bokk Yaakaar doon na loo xam ni bi tey jii def na ab say benn say say boobu mu def boo xam nit ñi ko bokk nit ci bokk parti ci bokk ni ñu bokkee ànd doon nañu ab say boo xam ak groupe boo xam ne tey jii kenn ñoom wu leen song wala it soo leen songee nga daanu suñ la songee nga daanu loolu it amul benn naatable ñuy wax ne yaakaar nañu ne ci loolu ñu def te ñu am ci ngëm-ngëm

dëgg la euh, euh, ku mu neex yoon wax la la nga wax lu la neex wala nga def lu la neex waaye ki nga xam ne bi tey li la yëkkati mooy réew mi mooy nga respecté suñu institution da nga war a respecté justice ndax justice ku mu woo da nga wuyu par force soo ko nangoo baax na soo ko nangul yoon xam na ay pexe yu muy def ba li la war a li la war a ñu àtte la

baña tontu liñ leen woo indi wax ji ak jëf ji ci mbedd mi ñu wax ne loolu euh, senegal gis nañu ne ay pexe yu ñuy def la pexe yooyu ñuy def wutul dara lu dul ñi yoon woo bañ wuyu yoon yëkkati nit ñi dëddale nit ñi ñu ngi dëddale yaay ak doom baay ak doom Euh, taalibe ak sëriñam ñiy jàng ak ñi leen di jàngal ñuy wax ne am réew du noonu lañ ko yore am réew kenn du ko yore ci féewale nit ñi am réew kenn du ko yore ci ay pexe pexe yoo xam ne ne bi teguwul ci yoon rafetul te pexe yoo xam ne bi bokkul ak suñuy aada bokkul ak suñu ngëm-ngëm bokkul ak suñu diine bokkul ak ñuy doxalee am réew ab mu ne su ko yore bu mel noonu am réew dañ ko yore ci jàmm du ci fitna am réew dañ ko yore ci xam-xam am réew dañ ko yore ci li nga xam ne ne bi ñu bëgg tey ñu tànn leen pour ñu yore réew mi ñu wax réew mi su leen ko joxee fan lañ koy jëmee nan lañ fay demee ak ñan lañ fay demee waaye saaga xarab xarab saaga xaste am réew kenn du ko yoree noonu ñuy wax ne tey jii yoon dafa woote senegal soo fa demee li ñu bind ca kaw sénégalais yépp xam ko mooy réew mi réewum yamale la nit kullu nit bu judd Sénégal ak foo juddoo ci Sénégal yow ak keneen lañu ñu yamale du ci réew mi yorewuñ ko ci xam-xam du ci xeex du ci juddu du ci dara nit ñi réewum senegal dafa yamale ñépp kon amuñu sikk sàkk ne yamale googule ak ni ko ni ko réew mi constitution jëlee noonu rek lay mën a deme ñuy fàttali daanale foofu que constitution wu réew mi moo may sénégalais ku mu mënti doon foo mënti doon lépp loo xam ne ne bi bëgg nga ko wax nga wax ko képp ku ku bëgg dox doxum ñaxtu am nga sañ-sañ doxu ñaxtu képp ku bëgg def meeting. am nga seen sañu meeting képp ku bëgg marche mën nga marche ku réunion mën nga réunion loolu la loolu la charte réew mi wax waaye charte réew mi daf ci yokk ne loolu it nañ koy doxalee ci yoon lay tegu bu caageen nga ñëw samp sa micro wax lu la neex def lu la neex ak fam la neexee da ngay yëglu soo yëgloo ba pare ñooñee nga yëglu nga yëgal ñooy xool ndegam jamono bi nga ko bëggee fu nga ko bëggee yoon may na la nga def ko wala doo ko def loolooy république te noonu la république euh, di euh, di doxee ñuy daanele di wax ne tey jii Sénégal dafa am na ñuy doxalee noonu ñuy doxalee dañ ko donn dañ ko donn ci suñu ay maam suñuy maam jox ko suñu ay baay suñu baay jox ñu ko ñu fas yéene ko jox suñu ay doom muy jàmm salaam ak respect suñu institution tey jii kenn ku ci nekk ci ñun foo mënti nekk ak noo mënti toll ak luy sa tolluwaay ak luy sa taxawaay lenn dong lañ lay laaj na nga motalee sa taxawaay ci respecter réew mi parce que loolu moo ñuy aar ñun ñëpp loolooyu li nga xam ne ni bi moom la ñu façon yéen a wax ñu leen di gërëm ci li ngeen ñu te wax ne ñu ngi euh, pare nañu su ngeen amee laaj bu ngeen di laaj